asalaamaaleykum amateur foot yi bu leen di fàtte di abonné wu ci seen bi may ko doole di ñëw ci Bellingham mu nekk jeune jour nekk international anglais bi mu ñëwee ci équipe Real Madrid ba léegi mu ngi wane boppam ci championnat Espagne chaque match dina dugal moom Bellingham saa yu Real jaaxle mais saa yu Real nekk ci jafe-jafe moom Bellingham moom mooy ñëw sauver équipe Real Madrid te tamit dugal na mu permettre réal gagner Getafe deux buts à un moom Bellingham boo xam ne ni ndaanaan la mais xale bu am jom la. ci Bellingham dañuy dem ci Mor Fokle mooy kan. xel leen xalaan te tamit dugal na penalti mu wone boppam weekend passé dafa raté woon tey mu ñëw mu dugal bi penalti bu rafet mu trois bii la dugal moom xel xalaan nekk ndaanaan. muy wane boppam ci championnat Angleterre ndaanaan la am na jom mais aussi am na emplacement ci biir du judi moom xel leen xalaan maanaam foo ko xelee bal dina ko dem jëli mu dugal ko am na force ba pare day dem ba mu jeex moom xel leen xalaan lii mooy buteur buteur da ngay xiif bii dem uti bi dem dugal bi moom xel leen xalaan loolu moo nekk ci moom gëm na boppam am na jom te aussi day dem bu mu jeex day sonal défenseur moom Erling Haaland chaque match mu mu ngi wane boppam te boo xoolee gune gu mun lu muy def la ñoom ñaar laa leen indil mooy Erling Haaland ak Bellingham kii mu ngi City mais kële mu ngi Real Madrid kii mu ngi championnat Espagne mais kii aussi tamit mu ngi championnat Angleterre ñoom ñaar laa leen indil tey ngeen seetaan leen ñu nekk ay xale yoo ne nii ñu ngi wone boppam. ñu ngi wane seen bopp ci football.